entreprise bi di o daal na soobu bu baax a baax ci xeexu xeexub Covid 19 bi daal na sax distribuer ay produits phytosanitaires lu toll ci ñaari millions ak ñeent fukki junni bu ñu sukkandikoo ci seen directrice générale bi di wuyoo turu madame Arnal. te ñëw bi ñu ñëwee ci ñun dañoo xëy fii nañ njëkk a teg seen tànk ma di ko rafetlu la directrice générale am na loo xamante ne wax na ko ne ci biir seen Sen'Eau am na benn campagne bu mag boo xamante ne def nañ ko. waaye bu ñu génnee seen bureau dañoo jàpp ne war nañu dem seeti seen i dëkkandoo parce que liggéey noonu la boo defee bu baax ci biir te ci biti de jéemoo ci dara bi dana am fu liggéey bi sooxee donc muy loo xamante ne en tout cas ñun dañ koy rafetlu yàlla dogal na Hann bel bokk na ci commune yi ëpp industrie ci Sénégal commune Hann Bel-Air mais lii ñu gis seen o def jël initiative def ko en tout cas ak don yi ñu def mun naa ne bu ko société yi newoon ci biir commune bi yëpp defoon je pense que tey am na lu bari yoo xamante ne danañu mën peut mën a gis en tout cas benn impact ci en tout cas niveau bi nga xam ne population yi ñi euh, ñi ngi koy euh, impacté wu nañu ci Covid 19 yi. donc di profiter ci occasion bi di lancer un appel aux entreprises de la commune de Hann bel donc lii ñuy def nii dafay loo xamante ne population yi ñoo ko moom du pour la municipalité ñun dañoo nekk ay relais. représentant population donc lii nga xam ne jox nañ ñu ko ñu ko jox jumtuwaay la boo xamante ne danañu mën a permettre parce que feebar boo xamante ne nee nañ la garab bi amul amagul existé wul waaye jàpp nañ ne que bu ñu defee distance yi maanaam bu ñuy sorianto di raxasu di utiliser gel am na lu mu mën a wàññi tey jumtuwaay yooyu lu ñu seen oo indil pour mën ñu permettre ñu atteindre suñu objectif donc merci encore. directrice général ñu ngi lay sant gërëm di sant gërëm en tout cas sa collaborateurs yi parce que relation commune Hann bel ak sen ak euh, société bi distribuer ndox du tey yàgg na dafay loo xamante ne yàgg na xamante nañ bu baax di société bu yore wàllu séddale ndox ci biir dëkk yu mag yi ci biir Sénégal fii ci commune Hann Bel-Air ci suñu njiital directrice générale muy madame Arnal ngir euh, jàppalanteeg ak commune bi nga xam ne mooy suñu njaati gi ci lenn loo xam ne ay jumtukaay la yoo xam ne yu ñu soxla woon lool ci jamono yi feebar bi ñu toll gis ngeen ko ay gel la ay saabu la ak i eau de yoo xam ne fi mu toll ni askan wi bokk nañ ci li ñu digle pour ñu koy fagaroo jëm ci feebar bi euh, seen oo nag am mbégte lool ñëw jëflante loolu ak commune Hann bel nga xam ne moom mooy suñu njaatige ñu ngi ko def nag nekk euh, njëlbeenu yoon li njëkk ci suñu génn gannaaw bi ñu fagaroo ci biir euh, fagaroo jàppale agent yi bu ku ci nekk teel a am mask teel a am gel teel a xam nan lay fagaroo euh, dañ ne nag dañu génn ci pénc mi bi ñu bëggee génn ci pénc mi nag naturellement bay ci sa wey tànk dañu njëkkee ci suñu commune bi nga xam ne mooy commune Hann Bel-Air kon euh, euh, madam Arnal mi ngi am mbégte lool ci jot li euh, don yi commune bi waaye aussi di féddali ne o ñu ngi ci seen wet pour ay yeneen i action xëy na ëllëg waaye di profito di xamal askan yépp comme jamonoy mbas la jamonoy cet la ñu yore ndox moom effectivement ñoom ñooy daanaka ñoom la ñuy gën a teg bët ci loolu bi seen oo taxawee toogee ba léegi 1er janvier ñi ngi góor-góorlu euh, ànd ci ak état bi pour ndox mi wéy di gën a am di gën a bari ci biir euh, dëkk bi am na ay projet yu mag yu état bi ak sone sumb euh, pour yokk ndox mi surtout fii ci dakaar waaye balaa projet yooyu di egsi CNO euh, moom mi ngi ci taxaw ci programme d'urgence boo xam ne su jeexee dina indi lu tolloo 47 000 mètres cubes jour mooy ñeent fukk ak juróom-ñaar ci junni mètre cube ndox ci bés bu nekk ci biir dakaar te boobu tàmbali ñu ngi koy dawal tey tey jii nii fukki junni yi si na déjà kon ñu ngi ci programme d'urgence boobu lépp rek pour que ndox moom bañ a nekk problème surtout ci jamono yi ñu toll lii ñuy def ci mbas mi nag euh, muy don yi ak li nga xam ne jot dañ ko def ci euh, agent yi ci biir loolu lépp nag suñu xajmaate yi daanaka toll na ci ñaar téeméer ak ñeent fukki million waaye ñu ngi ñaan yàlla yàlla yemale fi mbas mi waaye ñu aussi ñu ngi féddali état bi di féddali maire bi que ne lépp luñ ci war def rek incha allah dinañ ko di taxaw seen wet pour def ko